baalu gumba yi ku watuwul ndal ak doo dugg <laughs> watuwul ndal ak doo dugg gumba yi gaa ñëw gaa yi ñu ne ba ka mooy gaar porte bi ñu ne gumba bi mooy gaar port bi gaa yi ñëw ñaari copain ànd kenn ku mu ngi tudd Modou kenn ku tudd Faate kenn ñu ñëw taxaw si porte bi gaa yi taxaw ñëw bëgg a burle gaa yi seen bopp yi ñu ne yéen dellu woo leen mun leen fi dugg ñoom ñu taxaw fu ñu taxaw di trouver solution ñu xool xool am ñu solution yi daal di simbi seen tuba yi ñëw rek juutu gumba bi saa làmb seen xott taat yi rek ne lii daal la saa san dal bi leer na de <laughs>